amma lu mel ni xam bërëb ba muy faatoo nee nañu sunu boroom daa bind malaaka moo xam ni da koy booloo képp ku juddu malakul arxaam la tudd saa su jigéen ji amee doom sunu boroom da koy digal mu dugal ca biir jumbu xub xale ba am na ñu wax ni ca biir toq manuy wa bu nekkee ci biir ndeyam mu dugal ca dara lu bokk ci suufus fa muy faatoo moo tax jaam bi lu mu wër wër faaw mu dellu ca bërëb ba mu war a faatoo xëy na mooy wala wa yaalamu mustaqarraha wa mustawdaha wallahu aalam nee nañu malakul mawti daanañ ko gis bu njëkkoon mas naa ñëw ci yonante yàlla suleymaan alayhi salaam di xool wenn waxambaane wu nekkoon fa moom mu tàmbali di lox ba mu fàddeew ba gisatu ko mu ni suleymaan alayhi salaat boo gisoon li ma gis danga ma xettali mu ni ko nu ma lay xettilee mu ni ko da ngay digal ngelaw li mu yóbbu ma siin mu daa di def noona ba malakul mawtu dellu see ci suleyman alayhi salaam mu laaj ko lan moo taxoon nga doon xool waxambaane woow mu ni ko saa boroom dama digaloon ma ngëpp ak ruuxam siin ba noppi ma gis ko fii fi yow ma yéemu lool ginnaaw lii lañu xibaar suleyman alayhi salaam ni ko ca bis booba la faatu yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na diggu bàyyi may yépp ci tudd yàlla subhanahu wa taala la takku ku ci bàyyi tudd yàlla subhanahu wa taala sunu boyoom rocc sag ruu ba tey al wax na ci sajaratul yaqin ni malakul mawti bu ñëwee ci ab jaam ngir rocc ak ruuxam ruuxi da ko naan duma génn li feek sama boroom digaluma ko mu ni ko sa boroom moo ma ko digal mu ni ko anan luy xamle loolu mu ni saa boroom moo ma digal ni ma duggal ci yaram wii ginnaaw ba mu ma bindee te booba yow nekkoo fa nga bëgg maa génne su ko defee malaaka mi day dellu fa yàlla subhanahu wa ni ko saa boroom sa jaam boobee nee na nangam ak nangam te mi ngay sàkku ci man màndarga sunu boroom ni ko wax na dëgg boo demee àjjana watt fa benn pom boo xam ni sama màndarga ma nga ca te wan ko ruuxuk sama jaam boobu malakul mawti dem watt pom boo xam ni bismillahi rahmaan rahim lañu ca bind ñu wan ko ruu gi mu daal di nangoo génn ànd ak cawarte ba tey wax na ca téere boobu ni sunu boroom bu bëggee rocc ruuxuk ab jullit malakul mawt day ñëw ci wetu gimiñam ngir rocc ruux gi su ko defee zikkar ni ko doo jaare ci fii ndax man maay ak fayam mu dellu ci boroomam wax ko loolu mu ni ko jaareel ci geneen wet mu daal di jaare ci wetug ñaari loxoom ñu ni ko doo jaare fii ndax da daan saraxe ci nun lu bari di raay bopp jirim di bind xam-xam di dóori jaasi ci doqi yeefar yi mu daal di jaare ci ñaari tànk yi ñu ni ko doo jaare fii ndax da daan dox di dem ci julli mbooloo di seeti ñi tawat di teewe jataayi xam-xam yi mu daldi jaare ci ñaari noppi ñu ni ko doo jaare fii ndax da daan diglu zikkar ak alxuraan mu daldi jaare ci ñaari badi ñu ni ko doo jaare fii ndax da daan xool alxuraan ak kanami borom xam-xam yi su ko defee malakul mawti delli ci ci boroomam ni ko saa boroom sa jàmba nee nangam ak nangam sunu boroom ni ko dangay def sama tur ci sab loxo bu ko ruuxu sama jaam bu gëm boobu gisee dana la topp mu door a bind turu sunu boroom ci loxoom door a ñëw bu ko ruuxu gisee door a nangoo génn du am benn mettit ci yërmande yàlla subhanahu wa taala loolu moo di lii sunu boroom di wax ulaika kataba fi xuluubihimul imaan ak li muy wax afa man shara allahu sadrahu lil islaam fa huwa ala nuurin min rabbi deesu ko mbugal du gis tiiti yawmal xiyaama nee nañu am na lu ma juróom dañoo mel ni tooke juy waaye am na juróom yu leen di lugg lugg mooy faj adduna tooke la juy dëddu moo koy lugg alal tooke la juy asaka mooy ak luggam wax tooke la tuddu yàlla subhanahu wa taala mooy ak luggam ak dundu tooke la jaamu yàlla subhanahu wa taala mooy ak luggam mbooleem at mi tooke la weeru koor mooy ak luggam nee nañu jaam bi bu tolloo ci roccikuk ak ruuxam day am kuy woote naan bàyyi leen ko mun ko mu noppalu naka noonu buruu gi ak see ci ay bëti woomam akub jumbuxam dana am ko wax ni bàyyi leen ko mu noppalu bu demee ba agsi ci bulli gi mooy baat bi dana am ko wax ni bàyyi leen ko mu tàggatoog cëram yépp bàyyi leen ko mu tàggatoog cëram yépp su ko defee mu ni bët yi asalaamaaleykum ba yowmal xiyaamati kon nopp yi loxo yi tànk yi ruu gi tàggu bakkan bi yal na nu yàlla subhanahu musal ci gëm guy tàggu aw làmmiñ ak xam yàlla guy tàggu xol bu li amee loxo yi ak tànk yi dara dootu yëngutu bët yi dootuñ gis nopp yi dootuñ dégg yaram wi dootut amati ak ruu nee nañu seytaane ci waxtu wi day dikk toog ci wetu boppam naa ko bàyyil diine ji nga nekkoon ndax nga mën a mucc ci tartar yi nga nekk ndegam lii la demee te mbir mi lu tar la maa ngi lay dénk ngay toraxlu tey jooy tey dundal guddi gi ci julli ak jàng alxuraan ngir nga mën a mucc ci sawara mas nañoo laaj abu xanifa radiallahu taala ban bàkkaar moo mën a rekki ak ngëm mu ni bokkaale yàlla subhanahu wa taala ak bàyyi sant yàlla subhanahu wa taala ci may gi mu lay may ak gëm naka nooñu bañ a ragal sag mujj ak tooñ nit ñi li ci ëpp ku boole yii buy génn àdduna du génnaale ak gëm bu ko sunu boroom dimbaliwul te xeel ko nee nañu waxtu wi nit ki di faatu waxtu wu tar la woo xam ni day mar lool seytaane itam ju ngir bëgg a rocc ci ak ngëm ci moom yore butum ndox ñëw ci wetuk boppam di yëngal ndox mi bu ne ko may ma manaan mu ni ko weddel yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ma may la nga naan bu fekkee ku texee di la day weddi ngir maru metti daa di nekk yéefar door a génn àdduna bu dee ku texe nangu loolu day xalaat la ca kanamam nee nañu aboo zakaria bi muy bëgg a faatu am na xaritam bu ñëwoon ci moom di ko sala ilaha illallahu muhammadi rasulillahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi ko wax ba ca yoonu ñetteel wa mu ni ko duma ko wax xaritam booba mel ni ku xam nes tuuti abo zakariya xool ay bëtam daldi ni ndax wax ngeen ma dara ñu ko nee nañ laa ilaha illallahu muhammadu rasulillahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa ñaari yoon nga mel ni ku dëddu ba ca yoonu ñetteel nga wax ni duma ko wax mu ni saytaane moo di koon yor kopp bu def ndox taxaw ci sama wetu ndeyjoor di ko yëngal ni man ndax am nga ci xaajo ma ni ko waaw mu ni ma neel Isaa doomi yàlla la subhaana wa taala ma lànk mu ñëw ci samay tànk wax ma loolu ma lànk ca yoonu ñetteel wa laa ko wax ni duma ko wax mu sànni kopp ba daw na ngeen xam ni iblis laa doon tont waaye tontuwuma leen ashhadu an laa ilaha illa allahu wa anna muhammadan rasulillahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa mansuurum nu osmaan nee na ab jaam bu ak faatoom jigee sunu boroom day séddale léppam juróomi xaaj alalam ñi koy donn la koy jox ruugi malakul mawti ndawalam sax yi la koy jox ay yaxam suuf la koy jox aw yoomu ay xuloo waaleem la koy jox saytaane daal di dikk ngir rekki ak ngëm ci moom nee nañ ruu bu génnee ci yaram wi dana woote ci asamaan yi lu man ñetti yooxu naan yow doomu aadama yaa bàyyi adduna am addunaa la bàyyi yow doomu aadama yaa adduna am addunaa la rey yow doomu aadama yaa dajale adduna am addunaa la dajale saa suñu tëralee nee bi fa ñu koy sànge dana woote ba tey lu man ñett yooxu naan doomu aadama ana sa yaram wu dëgër wa tey jii gisuma ku la gën a doye di ana sa lammiñ wu leer wa tey jii gisuma ku la gën a noppi ana soy soppe tey jii gisuma ku la gën a weet saa yu ñu sàngee néew bi ci ay mbalaan dana woote ba tey lu man ñetti yuuxu naan yow doomu aadama yaa ngi jëm ci tukki sori te amoo ab yóbbal yaa ngi génn ci sa te doo ci dellu mukk yaa ngi wàcc sablal jëm ci néegub ay tiit saa suñu yenoo néew bi dana woote ba tey lu man ñetti yuuxu naan yow doomu aadama texe nga tey bu fekkee daa nga tuub tuskar nga tey bu fekkee sa borom mere na la bu fekkee teg nañu néew bi fañu koy jullee dana woote ba tey lu ma ñett yuuxu naan yow doomu aadama lépp loo jëfoon léegi nga daa di koy gis bu dee lu baax bu dee lu bon bu fekkee teg nañu néew bi ci pimnu bàmmeelam pinn mooy cat dana woote lu ma ñett yuuxu naan yow doomu aadama ana lan nga defoon ci seg dund ngir bërëb bu ràpp bi ana lan nga defoon ci sa alal ngir sa ñàkk gi ana lan nga defoon ci luy leeral sa lëndëm gi bu fekkee teg nañu néew bi ci biir bàmmeel bi dana woote lu man ñett yuuxu naan yow doomu aadama yaa ngi nekkoon ci kaw suuf si di ree tey nga nekk ci biir suuf si di jooy yaa ngi nekkoon ci kaw suuf si di wax tey nga nekk ci biir suuf si ni ciel bu fekkee ñépp dam nañu sunu boroom subhanahu ni ko yow sama jaam bi wét nga lool ñépp bàyyi nañ la ci lëndëmu bàmmeel danga ma daan moy ngir nit ñi waaye tey dinaa la yërëm yërmaane joo xam ni mbindeef yépp danañ ci yéemu ndax man maa la gën a yërëm ci sa ndey tey jii annas radiallahu taala anu nee na suuf si bis bu set ak guddi gu nekk dana woote lu mat fukki yoon ci fukki baat yow doomu aadama yaa ngi dox ci sama kaw te ay sax ñoo lay mujj di lekk boo nekkee ci sama biir yaa ngi bég ci sama kaw te boo duggee ci sama biir da yaa ngi dajale lu sama kaw te boo duggee ci sama biir réccu yaa ngi puukarewu ci sama kaw te boo duggee ci sama biir danga nga torox yaa ngi dox ci ak leer ci sama kaw te boo duggee ci sama biir ci ay lëndam ngay nekk yaa ngi ànd nag mbooloo yi di dox ci sama kaw te boo duggee ci sama biir da nga wéet lool ba tey nee nañu bàmmeel bis bu set dana woote lu man ñetti yoon naan man maay néegub wéet loo ma dencal yow doomu aadama man maay néegub lëndam man maay néegub ay sax loo ma fàggul ba tey nee nañu bàmmeel bis bu set dana woote lu mat juróomi yoon naan maay néegub wéet wutal lu lay wettali boo duggee ci man yow doomu aadama man maay néegub laajug munkar ak nakiir wutal lu lay wettali boo fu man te mooy baril jàng alxuraan ak laa ilaha illallahu muhammadun rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam man maay néegub lëndam leeral ma ci julli guddi man maay néegub wéet wutal ablal ci man te mooy jëf ju yiw man maay néegub ay jaan wutal lu lay musal ci ñoom te mooy bismillahi rahmaani rahim ak bari looy jooy ba tey nee nañu jamono ji gën a metti ci néew bi mooy bu ñu ko tegee ca bàmmeelam ba suul ko ba ay mbokkam dem ak i doomam ak i soppeem bàyyi kook boroomam yonente bi sallallahu taala alayhi ni ko lii na lool yow ndey julli ñi del jëf lu baax jamono ji gën a tar ci néew bi mooy bu fekkee ki koy sang dikk na ngir di ko sang di tekki ay jaaroom walla muy sumbi mbubbam wala muy dindi kaalam bu boobaa ak ruwam dana woote ci kàddu goo xam ni mindeef yépp danañ ko dégg ba mu des nit ak jinne naan yow mii sang summil sa ndànk ndax léegi laa noppi ci coonay malakul mawti bu ñu ko sottee ndox dana woote naan yéen sangkat yi def leen ndànk bu leen solal ndox mi bu leen ko tàngal sama yaram mi daa am mettiid yu ci nekk ngir génn roo gi bu ñu ko sangee ba sàng ko ba teg ñaari tànkam dana woote naan sangkat yi bu leen dëgëral càngaale ci sama bopp ba ma mën a gis sama ñoñ ak sama alal ak samay doom ndax tey laa leen di mujj a gis tey jii laay teqalikoog ñoom ba yowmal xiyaam bu néew bi génnee ci këram ba tey dana woote naan yéen sama mbooloo bàyyi naa samay soxna bu leen kenn lor bàyyi naa samay doom bu leen kenn lor maa ngi génn sama kër te dootuma ci duggaan mukk bu ñu ko yonoo dana woote naa ni yéen sama mbooloo bala ngeen maa dugal ci ma bàmmeel xaar leen ba ma digluwaat kàddug samay doom ak samay ñoñ ndax tey jii laay teqaliko ñoom ba yawmal xiyaama bu ñu ko yenn ko ba dox lu man ñetti jéego dana woote ci kàddu goo xam ni lépp lu yàlla bind dana ko dégg bam des nit ak jinné naan yéen samay soppe yéen samay mbokk yéen samay doom maa ngi leen di dénk bu leen àdduna wor bu leen saytaane war ni mu ma ware bu jamono fo ci yéen ni mu foye ci man xalaat leen ci man maa ngi nii bàyyi naa sama alal jépp samay ñoñ moom ko te kenn yenu ma dara ci samay bakar fi ne àdduna mi ngi may isaar ngeen topp ci man nii nar ma bàyyi ginnaaw léegi saa suñ ko jullee ba am ñu dellu ci ay ñoñam danaan yéen samay mbokk bu leen dellu xaar leen ba ñu suul ma bu ñu ko tegee ci kaw bàmmeel bi danaan yéen samay mbokk xam naa ni léegi ngeen bàyyi ma ci biir sama bàmmeel ma wéet lool waaye bu leen ma bàyyee ñaanal bu ñu ko suulee ba noppi danaan yéen sama ñoñ mboolem sama alal ji bàyyi naa ko ci yéen bu leen ma fàtte ci ñaan ak sarax fim mu ne xaaja woo naa leen lool te xamal naa leen alxuraan ak i teggiin lii am nettali la aboo xulaa bata mas naa gént armeel boo xam ni bàmmeel ya daa xar mboolem ña nekkoon ca biir génn toog ci kaw ci nekk teg ci sa kanam ndabul leer mu gis koo xam ni dara nekkul ci kanamam mu laaj ko lan moo ko waral mu ni ko ñii ngay gis seeni doom ak seeni xarit ñoo leen di ñaanal di leen saraxeel leer gi ngay gis mooy li ñu leen di yónnee man am naa doom ju baax waaye duma ñaanal duma saraxeel moo tax amuma genn leer te am naa gàcca lool ci samay dëkkandoo nee mu yeewu dem ca doomam nettali ko li mu gént mu ni ko tuub naa ci sama kanam te dootuma ko def mukk bis booba la tàmbuli di ñaanal way juram ginnaaw julli gu nekk di ko saraxeel ginnaaw lii aboo xulaamata géntaat lu mel ni la mu géntoon gis kookee bàmmeelam leer lool ba gën leer jant bi leer gu ëpp lool leeru ñamu nekkal mu naan yow aboo xulaamata yal na la yàlla fay aw yiw ci sa wax jooju mucc naa ci sawara ak gàcce gama amoon ci samay moroom li ab dog la ci tudd musibam faatu ak muñ ko yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama neena képp ku am musiba mu ko dal muy xotti ay yéreem wala muy dóor dënnam boppam xëy na mi ngi mel ni ku jël ab xeej di xeex ak boroomam yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama neena yàlla tabaraka wa taala ak i malaataam ak i ak nit ñépp rëbb nañu jigéen juy jooy ngir ak faatu ak mbooleem ña nekk ca wetam di ko diglu sayiduna al xoseynu radiallahu taala anhu bi mu faatoo soxnaam nekk na fa bàmmeelam lu mat at ba muy dellu ak ñamu àndaloon lañu dégg ak kàddu ci wetu bàmmeel bi te gisuñu ko mu naan ndax am nañu lañu ñàkkoon am keneen ku wax ci geneen we nii déedéet dañoo naagu dellu yonente bi sallallahu taala bi alihi wa sahbihi nee na képp ku ñuulal ab bunt xëy na da daan am booba képp ku ñuulal ab bunt ngir musiba walla mu xotti ay yére walla mu wat bopp dees na ko tabaxali ci kawar gu nekk am néeg ci sawara te mel na ni ku ànd ak ñu rey lu mat juróom ñaar fukki yonente te yàlla tabaraka wa du ko nangul ay farataam ak i naafileem loole mu ñuulal ma nga ca buntam te yàlla tabaraka wa dana xatal bàmmeelam taral xisaabam malaakay asamaan yi ak suuf si ñépp danañu maasi di ko rëbb te sunu boroom dana ko bindal lu mat junniy junniy te buy dekki day rafle képp ku xotti baati mbubbam ngir musiba sunu boroom xotti diineem képp kuy pes ay lexam sunu boroom xaraamal ci moom muy gis kanamam gu tedd ga ëllëg yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallama bi ibrahima doomam faatoo da doon génne ay ranxooñ ci ay bëtam abdurahmaan ibnu awf radiallahu taala anhu ni ko yow yonente bi yàlla bi yaan tere jooy de yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sabi wasallama ni ko yëkkati kàddu laay tere ak xotti ay yére ak pes ndax loolu jëfiinu yéefar la ak saay-saay waaye lii moom yërmande la joo xam ni yàlla tabaraka wa taala moo ko def ci xoli jaamam yi am yërmande sama xol moo jàq samay bët di génne rangooñ waaye lu dul luy loo yàlla tabaraka wa taala abu xanifata radiallahu taala anhu nee yëkkati kàddu ngir ku faatu xaraam na wala génne ay ranxooñ waaye génne ay ranxooñ dara nekku ci waaye muñ moo gën ndax sunu boroom nee na day fay day fay ñiy muñ te du leen xisaab yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa na la xalimak sunu boroom njëkk bind ca lawhul mahfuus ca ndigalul yàlla tabaraka wa taala mooy lii man maa yàlla amul benn buur bu dul man mohamed samab jaam la tey samab yonante maa ko tànn ci samay mindeef képp ku nangu samab atte di muñ samay nattu di sant samay xéewal danaa ko bind muy siddiix te dinaa ko dekkal mu ànd ak siddiix ya yowmal xiyaam ku dul wommatu ci samab atte du muñ samay nattu du sant samay xéewal na génn ci ron sama asamaan te wut beneen buur bu dul man am na boroom xam-xam bu wax ni muñ ak nattu ak tudd yàlla subhanahu wa ci musiba war na nit ku nekk ndax boo tuddee yàlla tabaraka wa taala ci waxtu woowu dana doon gërëm yàlla tabaraka wa taala ak gërëm ab dogalam doon itam luy toroxal seytaane seyduna ali karamallahu wajhahu nee na muñ ñetti xaaj la muñ ci jaamu yàlla tabaraka wa taala muñ moy yalla tabaaraku ta'ala muñ musiba kep ku mu yalla tabaaraku ta'ala sunu borom dana ko jox bu ëllëgé ñetti téméri daraja daraja ju nekk morom ma dana tolni digënté asamaan ak suuf kep ku muñ ci jaamu yalla tabaaraku ta'ala sunu borom dana ko jox lu ñaarte lu ñëkk la kep ku muñ ay nattu sunu borom dana ko jox juróom ñeenti téeméeri daraja daraja ju nekk ak moroomam dana toll ni diggante aras ak suuf si lii ab dog la ci génn ruuf nee nañu ab jaam bu ak ruuwam tollee ci waaja génn aw lammiñam dootu mën a wax su ko defee lu man ñeent malaaka daadi aksi kii ni ko asalaamualeykum man mii la yàlla tabaraka wa taala dénkoon sa wërsëg war naa suuf sépp penku ak soowu gisuma ci sa wërsëg lu tol ni benn tibb keneen ni ko assalaamu aleykum mi la yàlla tabaraka wa taala dénkoon sag naan wër naa suuf sépp penku ak sowu gisuma ci sam ci sam ndox lu tol ni ak toq keneen ni ko assalaamu alayka man mii la yàlla tabaraka wa taala dénkoon say noyyi wër naa suuf sépp penku ak sowu gisuma ci sag noyyi lu tol ni genn nokki keneen ni ko assalaamu aleykum man mii la yàlla tabaaraka wa taala dénkoon sab dikk war naa suuf sépp penku ak soowu gisuma ci sag dund lu tel tol ni wenn waxtu ñaari malaaka yu tedd yi bind jëf daldi daa agsi kii nekk ci wetuk ndeyjooram kii nekk ci wetuk càmmooyam malaaka mi nekk ci wetuk ndeyjooram ni ko man mii la yàlla tabaaraka wa taala dénkoon say jëf yu yiw malaakam mi nekk ci wetu càmmooyam ni ko man mii la yàlla tabaraka wa taala dénkoon say ñaawteef malaakam yiw wi daal di génn kayit wu weex tàll di ko wan naan ko xoolal muy xool di bég malaakam ñaawteef yi génn kayit wu ñuul kukk di ko wan ay ñaawteefam naan ko xoolal muy xool aw ñaqam di siit muy xool ci wetu ndeyjoor ak càmmooñ ngir ragal li ñu bind ci aw kayitam ñu door dem ñoom ñaar am meneen malaaka mu daldi dugg te mooy malakul mawti nee ñu malakul mawti bu dikkee ngir rocc ak ruu ci jaam bi tawat malaaka yërma yi dañuy nekk ci wetu ndeyjooram malaaka yi nekk ci wetu càmmooyam am na ñoo xam ni dañuy xëcc bu baax seenug ruu am na ñoo xam ni dañuy rucc seenug ruu ndànk am na ñu leen di gën a am ak ndànkal su ko defee ruug yi bu dikkee ba agsi ci baat bi malakul mawti téye ko bu fekkee daa bokk ci ñi texe dan koy woo ci malaaka yërmane yi bu bokkee ci ñooñ texee di dañu koy woo ci malaaka yi mbugal yi ñu daa di roog yóbbu ak ruuxam ba fa borom mindee fii bu fekkee daa bokk ci ñiñ texe sunu borom tabaarak wala danaa delloo leen ko ca këram ba mu gis ay aw yaramam su ko defee malaaka yi wàccaat andi ruugi teg ko ci diggu këram muy gis ñiy jàq ak ñi dul jàq ngir moom waaye du mën a wax bu lii jàllee ñiy nettali nañu ak wuute ndax ruugi day dellu wala déet am nañu wax ni ruugi day dellu ca yaram wa ca biir bàmmeelam mu mel na mu meloon ci àdduna ñu dóor koo laaj am na ñu wax ni ruu gi rekk lañuy laaj waaye deesul laaj yaram wi am na ñu wax ni gi day dugg ci biir yaram wi ba ci dënn bi am na ñu wax ni ruu gi day nekk ci diggante càngaay ak yaram wi loolu mooy li ashari yu wax ci sajaratul yaqin am na ku wax ni képp ku bëgg mucc ci mbëgalum bàmmeel nay taqoog ñeent tey moytu ñeent ñeent yi muy taqool ñooy julli juróom ak sàkk sarax ak jàng alquran ak sàbbaal yàlla tabaraka wa taala lu bari ndax yii dañuy leeral ab bàmmeel ñeent yi muy moytu ñooy fen ak wor ak rambaaj taqal am ngaanuwaay ci aw yaramam yonente nee na ñàkk a ci am ngaanuwaay dana waral mbugalu mbàmmeel lii ay njariñ la yuy musle ci taxawaayu ëllëg attamimiyu wax na ci kitaabu nooray ni di jàng sóolatul majiid dana musle ci sukkaraati dee bokk na ci li musle mbugalum bàmmeel di bëril sàbbaal yàlla tabaraka wa ak jàng alxuraan ci am njàpp ak saraxe ak julli juróomi yii dañuy leeral bàmmeel di ko yaatal ba fa yam nee nañu boo tibbee ci suufus bàmmeel ci sab loxo jàng ca ina an sannahu juróomi ñaari yoon sotti ko ca kenn du mbugal borom bàmmeel ba bokk na ci li waral mbugalum bàmmeel ñàkka setlu ci am gaanuwaay ak di fen ak a wor ak a rambaaj képp ku bàyyi yi sa bàmmeel ab dër lay doon ci dëri àjjana te sa bàmmeel du la tànc dalay tàpp ni way juram di tàppe doomam bokk na ci liy dimbulee ci tontu ñaari malaaka yi di jàng sóoratul mulki ci gépp guddi bokk na ci li musle ci aw ñaq bu ëllëgee di farala toog xam-xam yi di leen liggéeyal di leen sopp tey dundal jàkka yi tey gasteen yi yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sabi wa sallam nee na bu ëllëgee danga gis koo xam ni am ñaqam dana ñëw ba ci ay noppam ñu ni ko yow yonente bi yàlla bi lan moo cay musle mu ni dee leen boof ci boroom xam-xam yi xëy na di leen laaj ak di sàkku seen barke yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi nee na jigéen ju xool boroom këram xoolub sob du ñàq bu ëllëgee ku nekk ci keruk saraxam lay taxaw képp ku woddu ku amul yére sunu boroom dana ko woddu yére sooyu rafet ku jox aw ñam ku xiif bu ëllëgee sunu boroom dana ko jox ca meññiti àjjana képp ku may ndox ku mar boo liggéey sunu borom dana ko màndal ca kawsar ak ak raxiqul maxtuum ku mënul yi ba tey julli mën na leen a wecc képp kuy jàng soo jàng takk takwiir bu ëllëgee téereb jëfam du ko gàcceel képp kuy jàng sóoratul inshiqaaq bu ëllëgee téereb jëfam du ko dikkee ci ginnaawam képp ku ragal yàlla tabaaraka wa taala te mooy bañalaa li tere du jàpp téere mukk ci loxob càmmooyam képp kuy jàng suratul xaaria sunu boroom diisal ay jëfam buñ leen di natt képp kuy jàng suratul xaasiya sunu boroom dana jàppnel ci moom isaab bokk na ci liy yombal jéggi siraat refer njott ci yàlla tabaraka taala ak bëri julli ci yonente bi sallallahu taala ak di def fooy toog di jublu xibla li feek nekkoo di doxaajo te mooy xayta ak di wax ginnaaw julli farata gu nekk ashadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ilahan waxidan wa rabban shahidan wa nahu muslimun ñeent yoon lii ku koy saxal siraan ñeenti xasab lay doon ci yow bokk na ci lii musle ci guddaayu taxawaay ba nekk jullit bu wér fii ci adduna tey topp ndigal yi di bàyyi tere yi ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala tey tuub lii ku koy def taxawaay ba wenn waxtu lay doon ceew bokk na ci lii musle ci aw mar ca taxawaay ba di bëri looy julli ci yonente bi salallahu taala alay bi alihi wa sahbihi wa salam bokk na ci lii musle ci sawara taqoo julli juróom ci mbooloo ak mboytu mbooleem yu haraam yi tey jooy ngir ragal yàlla tabaraka wa taala ak di sàkk sarax yonente bi salallahu taala alayhi bi sabi wa sallama nee na leen moytu sawara doonte ci daggiitu tàndarma la nee na dee leen moytu sawara doonte ci giitu tàndarma la xañ na di ko saraxe naka noonu def boo sëlmalee suba ak timis di wax lii allahumma ajirna min annaar juróom ñaari yoon yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee ci tawat bu ca sawara du ko laal laa ilaha illa allahu akbar laa ilaha illa allahu wahdahu sharika lahu laa ilaha illa lahu lahu alhamdu laa ilaha illa billah képp ko laa ilaha illa allahu juróom ñaar fukki junni dana doon ak njot moom ba du tàbbi sawara li feeg bokkul ci ñooñ laaraaf te mooy mu mel ni ku doon doonu njaalo ba noppi gëm yàlla tabaaraka wa taala wala ku doon xare ci lu dul ndigalul we ñaari way juram wala mu xam te jëfewul yonente bi sallallahu taala nee na képp ku jàng xul huwallahu ci tawat jamu faatoo deesu ko fitnaal ci bàmmeelam deesu ko tànc ci bàmmeel malaaka yi alim salaamu ñoo koy yennu ci seeni laaf bu ëllëgee ba mu jéggi siraat tàbbi àjjana képp ku bëgg a mucc ci rekki ku ngëm boo dee faatu da julli ñaari rakka diggante timis ak gee rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon ak ina ansalnaahu benn yoon ak suratul ixlaas yi juróom ñaari yoon ak fàllaxi ak naasi lu ci nekk benn yoon boo sëlmalee wax lii ñetti yoon allahuma inni astawdauka diini fahfasu alayya fi hayaati wa inda wafaati wa baada mamaati am na ñeent yoo xam ni ñooy waral rekk ku li ci ëpp ci ab jaam bàyyi sant yàlla tabaraka wa taala ci lislaam ak ñàkka ragal demuk lislaam ak tooñ ñooñ lislaam ak dog ñaari waajur